waaw waaw waaw waaw ñu ngi jégalu ah dañoo nekkoon ci xat bu métti métti depuis sànq avant avant boobu ba léegi ñu ngi woon waaw di jàmmarloo ak euh, takk der yi force de l'ordre yi ñi nga xam ne ñëwoon nañ fii pour jéem a tas rassemblement bi waaw gis ngeen noonu mais nag patriotes yi résisté nañ waaw patriotes yi résisté nañ defar nañ bouclier. gis nga patriote yi ñu ngi def tout jéem a koñ bi nga xam ne accès bi dina difficile def nañ fépp ay barricade def nañ lépp te gis ngeen lii lépp lu ko waral mooy euh, maanaam euh, détermination bi nga xam ne euh, nguur gi am nañ ko pour bëgg a nasaxal ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko patriote yi tamit taxaw ne du ci dal patriote yi taxaw ne du ci dal gis ngeen waaw à la guerre comme à la guerre waaw gars yi ils sont déterminés gars yi sont déterminés Pare, pare, pare. Pare, Ziar naa la. Yàlla ziar. Nu mu demee. Jaw. Sànq ni daa àqan une heure. Ok. Waaw mais lépp jàmm. Baax de eh baax. Ay lii weñ la du ko du topp waay. Voilà. Pour défendre le président Sonko. categoria mondiale. gars yi barricade nañ fi nga xam ne barricade na fi nga barricade nañ fi nga xam ne moom la président Ousmane Sonko nekk muy rue bi nga xam ne moo yor ci kër président Ousmane Sonko gis ngeen da ngeen gis nii gis ngeen saxaar sële yëpp gars yi ko taal pour jéem a maanaam empêcher force de l'ordre yi ñu dugg si. tol leen koy xeer tol leen koy xeer tol leen koy xeer ñu taxaw nañ leen teg tol leen koy xeer tol leen koy xeer tol leen koy xeer waaw gis ngeen waaw waaw la lutte seule la lutte libère ah seule la lutte libère waaw ni mu amee fii xam naa ne waaw patriote yëpp nañ ñëw patriote yëpp nañ ñëw pour faire face waaw pour faire face waaw xam nga rek affaire yi ñu ngi commencé waat jaxaat rek dañ leen di bàyyi wax ba ci kanam waaw yéen a ngi suivre seen page Pastef bu waaw gis ngeen saxaar si ñu ngi jógee fu nekk jool yi gis nga lacrymogène gaa yaa ngi dóor lacrymogène waaw riposte tamit mi ngi am.